Euh, conseil en constitutionnel loolu yëpp dinañ ci ñëw euh, waaye tey dañu ci ànd ak ki nga xam ne moom moo di Tigresse bu Macky Sall nekk influenceuse nekk ci tiktoker boo xam ni dafay défendre moom itam euh, Macky Sall ñu bàyyi ko mu nuyoo rek bu ko defee ñu ñëw ak moom ci waxtaan bi Tigresse maa ngi lay nuyu bàyyi la internet yi. salaamaaleykum Serge internet maa ngi leen nuyu di di nuyu yéen ñi ma fi fekk di wax ne euh, man moom li ñuy naan lu ne fa ngi kenn du ko jeex euh, c'est la tigresse de Macky Sall encore rek moo fas yéene jàkkaarloog yéen di leen nuyu di leen ziar di nuyu son excellence président Macky Sall président de tous les Sénégalais président Union africaine le visionnaire l'homme de plan émergent ak euh, l'homme de grands chantiers kooku la ñuy wax ne le gardien de la constitution kon maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax di ziar yéen ñëpp ñi fi toog. mais nag tey solo couleur am sol. waa xam nga rek euh, couleur bi ci xool bi la ne. Mhm. waa ci xool bi laa ko dugal ndax kal xar-xaru kanam bi soo ko xoolee rek da ngay xam ne Macky Sall moo ci nekk ba mu jeex mhm. moo tax nag des fois damay kase couleur bi bàyyi ko ci xel meeg xool bi. moo tax rafet na lool euh, sañsa bi waaye jamono bii euh, mu bëri coow lool lool bokk na ci ñu xëy rek gis président Macky daal di def ab sortie daal di wax que ni dafa ajandi li nga xam ni moom moo di élection yi tigre est-ce que mën nga ñu ñëwaatal ci lan moo tax président Macky daal di ajandi li nga xam ne moo di élection yi. waaw ajandi président Macky élection bi dama ciy kontaan parce que dafa nekk loo xam ne du coobare boppam mu nekk loo xam ne président Macky Sall ku ne gisoon na dafa génn ne du ma dem troisième mandat avant muy wax du ma dem amul ku ko investir parti bi ñëpp investir nañ ko ñii jooy nañ ñii def lu ne mu dem bëgg-bëggam ci réew mi bëgg Sénégal xam lan mooy ngëneelu Sénégal xam ne li mu nekk sénégalais yee ko teg mu ne comme sénégalais dañ ne deux mandats te man maa ko waxoon fii laa koy yemale mais yàlla def nag ñu organiser élection yi ñuy dem élection yi waroon nekk la vingt cinq février bi lañ ko waroon def mais ci biir élection yi candidats yi mu bëri ay problème waa wàllu ñu ne du ñu dem ñi nee nañu téye nañu waa wàllu jël nañu jomaay dugal nañ ko ci candidature gars yi ñu ne dañoo corrompre conseil constitutionnel waa conseil constitutionnel nag nee nañu comme dañ leen a corrompre ñoom dañu war a setal seen ñu ne ñoom duñ leen bàyyi ñuy organiser ay élection ñu naan leen dañoo corrompre jël xaalis jox leen ñii dugal ñu dugal ñii génnee ñii waa wàllu tamit ñu ne pour pourquoi ñuy jël dugal ba Bassirou Diomaye fay ba pare te duñu dugal Karim Wade ñu ne am na ñu am double nationalité te ñu ne Karim Wade daa am double nationalité ba léegi jógul ci président Macky Sall conseil constitutionnel ñoom ñu bind seen lettre président Macky Sall ñu ne dañuy toog saytu leeral seen bopp ndax ñoom du ñu mën a organiser nekk ci conseil bi conseil constitutionnel bi def loo xamante ne mooy war ñëpp ñoo ko moom tëddee njaaxaanaay suñu leen waxee dañoo corrompre kon ñoom dañuy seetal seen bopp waaw walu tamit ñoom tamit ñu ne dañuy ñoom ñoo ñaan président Macky Sall ñaanuñu sax ñoom dañu ne ñaanuñu président Macky Sall dañu war a pousse élection yi ñu dem assemblée nationale ñu voté ko ñu nangul leen ko président Macky Sall ne comme loolu la ñoom ñëpp nee nañ ak am na opposant yu bari yoo xamante ne ñoom nangu nañu ne ñu pousse yi ñu wax ko président Macky mais président Macky comme sénégalais yi la fi nekkal te ñoom ñooy def seen élection ñu ne nañ ko pousse président Macky Sall génne président Macky Sall li mu wax génnewu ko ci kàddoom génnul ci gémminam du idéem du xalaatam. mais est-ce que du prétexte rek. parce que boo xoolee conseil constitutionnel même bu fekkee sax ñu ngi leen di ji ñi nga xam ne moo di corruption tey élection yi tey parrainage bi ba ñu ko defee léegi yàgg na dem nañ ba bàyyi ñu bëri ñu jàll mais liste définitive bi ba mu génnee. ñëpp xam nañ ni Soham Wardini foofu la ñu waroon xoolee ba xam am na double nationalité ou pas donc ba ñu fa téyee Karim bàyyi Bassirou Diomaye mu jàll est-ce que du Diomaye mi jàll lañ dem ba xam ne danger la ci ñoom. non non non Diomaye mënu nekk danger. lu tax am ñoom dañu am doole fii dañ ko dissoudre. ah mais parti bu ñu dissoudre la gis nga ji mooy. nit ñi ñoo mënut a nangu mais Pastef moo amatul. tur bi ngeen dissoudre mais tey ñi. àndal ak Pastef ci boppam Diomaye Diomaye mënul nekk candidat. lu tax Jomaay mi ngi ci prison bi Jomaay casier dafa yàqu Jomaay président seen président boobu ngeen di wax Ousmane Sonko teg na nag ay chartam. kon lu moo tax ñu war a bàyyi Jomaay mu jàll. non Jomaay Jomaay jàllugul gars yi ñu ngi woon ci saytu dafa am première phase am deuxième phase mhm. si saytu bi lañ nekk ñi jàll parrainage mooy première phase mais jàll parrainage bi bu paree ñu ngi saytu mhm. yow sa candidature lu ko war a jàllale xam nga parrainage yomb na yow tey jii moomoo nit ñi mën nañ la bëgg. nga dem jël laajte carte d'identité carte d'identité ñu jox la loolu yomb na c'est facile mais du loolu mooy élection dégg nga si loolu lañ nekkoon di saytu double nationalité dañ koy saytu lépp dañ koy saytu gars yi dañ ne ku bëgg nekk candidat da ngay indi parrainage maanaam daa mel ni rek ñu ne la ku bëgg teg da ngay teg sa xaalis mais teg sa xaalis bi parier bi est-ce que di nga gagné wala doo gagné. mais réeroo am na parce que tey bu ñu téyee ki nga xam ne moo di euh, Karim Wade ci double nationalité ça veut que saytu bi commencé na foofu donc saytoowuñu foofu Soham Wardini saytoowuñu foofu Bassirou Diomaye Faye ba élection yi desul lu dul quelques jours campagne yi war a commencé ñu ngi waxoo ko saytu yaa problème mais saytu bi commencé nañ ko saytu bu yàgg conseil constitutionnel seen mbir a yéex rek mais ñu ngi ko doon saytu bu yàgg donc conseil constitutionnel li ñuy wax que ni fi mu toll ni problème am na ci biir conseil constitutionnel dëgg la parce que ñu bëri dañuy jàpp ni ah, Macky moom moo leen ku la ay bët fu ko neex nga non non non mhm. Macky Sall bu doon able bu doon able bët Diomaye duñ ko doon wax sax parrainage ba muy jàll Macky Sall bu doon ab lebat ñu bëri duñ leen bàyyi ñuy taxawaalu di jàll Macky Sall dafa libéré wu bi mu nee du dem la libéré wu naam teg na candidat mu ne mooy suñu candidat Amadou Ba moom la ñu bëgg mu ànd ak gaay mais Macky Sall daf boobu dafa libéré wu Macky Sall defu ci dara waxu ci ndax Macky Sall bu doon jël bu fekkoon Macky Sall propre boppam mooy wax kon élection yi du ñëw day ñëw samp Amadou Ba ne ko Amadou Ba yow yaay toog mu toog mais nag moom Amadou Ba moom nga xam ne sax moom la jël comme candidat dañ doon dégg ci euh, suuf ñuy wax que ni moom Macky Sall jamono bi am na ay ñool-ñool yu am seen diggante parce que Amadou Ba ñu bëri dañuy wax ne dafa am na mu war a leeral laataa muy dem élection dañ ko wax quelques jour ñu gis président Macky daal di génn daal di wax que ni euh, dañuy reporter élection yi moo tax ñu bëri jàpp ni tam euh, li nga xam ne moom moo di report boobu noonu candidature Amadou Ba bi nga xam ne amaguñu lu leen leer donc loolu daf ci joué. <laughs> xam nga yëf daf may def reetaan. ndax euh, premier ministre mënul toog ak Amadou Ba mhm. jàkkaarloog Amadou Ba ñu waxtaan conseil constitutionnel bu ñu ñëwee mhm. gars yi yëpp ñëw ñu ne dañu war a repousser di xool lu mu tëddi double nationalité bi mhm. bañ ko waxee ñëpp bind lettre président Macky Sall balaa muy génne décision dafa wax ak Amadou Ba ñu wax ba Amadou Ba nangu mu signé Amadou Ba signé rapport baa ngi ñëpp gis nañ ko génn na président Macky Sall lépp lu mu jël bi muy wax sax dafa ne waxtaan naa ak sama premier ministre xam nga nag gars yi foog ñu diaboliser puisque yàqkat yi ñoom nu mu gën a yàqoo rek loolu la ñu bëgg génn naan président mag Sall daa bëgg génnee Amadou Ba mais président bi mu wax lu leer la wax sama candidature tax arrêté naa ko du ma dem te sama candidat mooy Amadou Ba li ma waxoon démb moo am tey mais lu ci des. gisoo leen fenn président Macky Sall bu fekkoon dafa wax ba mu jeex te tuddul Amadou Ba te waxul waxtaan naag sama premier ministre loolu mais président Macky Sall vendredi bi ba 4 heures du matin ñoom ñëpp ñoo toog dañu waxtaan ba déggoo yëpp ba pare doog wax te président Macky Sall balaa muy wax am na ñu ko njëkk bind ñi nga xamante ni opposant ñoom Bougane Gueye ñoom Mimi Touré ñoo njëkk a bind benn lettre boo xam ne di demande président Macky Sall si benn demande da xam ne ñii duggoon nañu pour ñaan nañu repousser élection yi. Mhm. kon président Macky Sall jëlul décision. Mhm. ci opposition bi moom loolu dañ la koy nangul am na ñoo xam ne bëggoon nañu pousse élection yi mais itam moom président Macky Sall jamono bi sénégalais yi dañu ko vaar ndax ki nga xam ne moo di Abdoulaye Wade dañu ko vaaroon mu ne maa waxoon waxeet. Mhm. waxoon waxeet boobu nag dañu ko gis ci euh, président Macky Sall ndax dañu gis euh, ab vidéo boo xam ne mi ngi viral euh, ci réseau yi que ni président de la république warul puusaat mandat am lu tollook une journée. donc moom mu puusaat élection yi ba 15 décembre ça veut dire que puusaat na mandat am fii ak donc moom moo waxoon waxeet. waa da nga ne président warul pousse mandat mandat nga nga wax de président Macky Sall ba léegi puusul mandat mais bu ñu ah non déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma président Macky Sall bu ñëwoon mhm. si coobare boppam mu taxaw mu ne man de maay pousse élection yi ndax pareegu ma bu boobaa ñu ne président mais yéen conseil constitutionnel ah ak waa wallu ak ñi nga xamante ne ñoom ñëpp ñoo taxaw ñu opposant bi ñu ne am na double nationalité ah, kii nu mu traité du Soham El Wardini kese Soham El Wardini am na double nationalité Anta Babacar Ngom am na double nationalité Karim Wade double nationalité ñu bëree bëri ñu ngi leen di wax ñii bu Pologne ñii bu Espagne ñii bu États-Unis ñii France ñoom candidat yëpp mais imagine vous imaginez vous yéen ñooñu ñoo ne ñoom ñii ñëpp dañ leen di saytu te xam nga waruñu saytu Soham El Wardini kese bàyyi ñeneen ñi comme génn nañ di saytu Soham El Wardini nañ saytu ñeneen te ñeeni conseil constitutionnel nee nañu ñoom dañu war a setal seen def mais yéen ani foofu noonu ak pousse élection présidentielle mais nag loolu fii ak un pousse loolu fii ak un an peut-être saytu boobu noonu bañ ko waree def sax du tey donc élec ñi nga xam ne ñoo di opposition bi yàgg nañoo wax te président Macky Sall di leen tànkam lu bañ naka ba sax bu ñu mësaan woote dialogue ñu bëri du ñu ñëw parce que dañ naan lu ko neex rek lay lu mu bëgg rek lay dégg donc tey jii nii bu ñu gisee mu pousse élection yi fii ak un an mooy ça veut dire que fii ak un an moom mooy nekkaat suñu président quoi qu'on dire. Euh, xam nga te am na ci ñoo xam ni nee nañu dañu doyal si moom. xam nga conseil constitutionnel bu fekkoon ne dañ liñ leen tuumaal dañ leen tuumaal ci diggante bi ñoom ñoo ne dañuy saytu bu fekkoon début lañ leen tuumaal ñëpp xam ne ñu ngi leen di tuumaal ñu toog ba mu des ñetti fan nga ne yaa problème mais quel est ñoom ñoo ne dañ leen a tuumaal mbir mi si ñi nga xam ne ñooy organiser élection ñoom ñi nga xamante ne ñooy naan kii mooy bokk kii moo dul bokk ñoom ñoo dugal yéen da ngeen war a xam ne rek président Macky Sall bu fekkoon ku mu ku mu abal bën dañ naan abal bën fu la neex ngay xool kon du ñu doon jéem a dugal jomaay mais parrainage yi nag ñu bëri dañuy wax que ni dafa am kumba am ndey kumba amul ndey comme na bu ñu xoolee tey ku ci mel ni Bougane Gueye Dany gisuñu mu jàll ku ci mel ni Maître Alpha Bokar Thiam gisuñu mu jàll ani parrainage Bougane Bougane wër na réew mi tey boo xoolee def na benn campagne bu colossale boo xam ne Bougane mënul ñàkk quarante cinq mille parrain ci tànk ci bu tànk cest à maanaam nee na fu Macky Sall jaar fa lay jaarati bu tànk mhm. fu Macky Sall jaar te Macky Sall fépp fu mu jaar dafa jaar fi mu war a jaar yow nga ne danga fay jaar day mel ni man ma fekk la yow si sa domaine sa liggéey ma ne ñëw dama lay fekk sa liggéey du ma daan bugaan lu mu liggéey Macky Sall non dama lay wax rek moom nee na tibb tànk la wëree boppam mhm. te xam nga parrainage yi c'est facile ndax sénégalais yi dañoo yeew benn yeew boo xamante ni ku ñu bëggul parrainel duñ la parrainel mhm. yéen xam ngeen da nee ngeen sénégalais dañoo doyal ah parrainé na ñi ñu war a parrainé mais Bougane daa amul ay daa amul ñu ko war a parrainé amul ñu ko war a parrainé dafa war a dem toog am ñi am Anta Babacar Ngom mi ñëw dem am parrainage Bougane amul kon na seetaat boppam daa war a dem toppatoo teleem boobu mu xam ne moom du jol jël mi parce que warul jël réew mi parrainage sax ma ku mënul am parrainage boo xamante ne seen waa kër rek bu xoo xooloon famille xanaa Bougane lu mu bon bon famille yëpp ko daloon mën nañ sang pare noonu ko kon na dem xoolaat boppam. lan ngay wax ci sénégalais yi nga xam ne dañuy wax que ni ay Anta Babacar Ngom ak ñi nga xam ne dañoo jot a jàll Mame Boye Diao ak ñu ne mel ñoom ñëpp dañu nekk njabootu Macky donc bis bu ñu demoon ba ci cëppaandaw ga rek daal di bootu ginnaaw moo tax sax ñu bàyyi leen di jàll loolu sax moo tax tuumay conseil constitutionnel bi loolu bokk na ci bu baax a baax. Hmm. Mhm. Euh, Mame Boye Diao bu fekkoon doom président Macky Sall du taxaw président Macky Sall doomam la woon avant doomam la woon kon du doon président Macky Sall du jël candidat ni kii la. est-ce que waxul leen rek. non non non non non leen ngeen ngeen ngeen. non non non président Macky Sall da leen nit koo xamante ni da ngeen da ngeen da dese xam président Macky Sall ndax président Macky Sall politicien la. gis nga fii képp taxaw fii képp ku fii taxaw toog président Macky Sall moo la dàq politique. raison déglu ma da koy teg ci yoon teg ko ci charte président Macky Sall menn mooy xamante ne sans gagne sans perte lay demee. Mm. Mame Boye Diao peut-être am na lu nekk digganteem ak Amadou Ba. wala am na leneen loo xamante ne bëggoon na ko wala daa bëggoon natt boppam daa bëgg xool fu mu toll xam nga des fois lenn dalay nax dangay nekk ci nguur nit ñi topp la topp la nga ne déedéet xaaral ma génn mën naa am li keneen ki am fekk or que c'est faux c'est pas ça Mame Boye Diao Balde moo ko dominé Kolda kon xam nga koo xam ne mënoo gañe sa dëkk mënoo laaj lijjanti feneen mhm. mu génn boppam Mame Boye Diao bu génnee parrainage tamit Mame Boye Diao sax gaa génnul parrainage pour te dire Anta Babacar Ngom gars yi gis nañ ko jox nañ ko bopp sénégalais moo mel noonu mhm. gan lay bañ a gis mais Anta Babacar Ngom parrainage nee naa la ba léegi li may wax parrainage ça n'a rien à voir ak élection yu mag yi mhm. ci jàll parrainage bokk ak élection merci beaucoup ça c'est vrai. Mhm. donc lan ngay wax itam ci euh, coupure bi nga xam ni lu xew rek ñu daal di couper li nga xam ni moom moo di euh, connexion yi sénégalais yi bëri di ko ñaawlu nag ba ci waa Sonatel sax démb amuñu lu leen neex ndax bëgguñu ko woon couper ndax ñu ci mel ni ñun ñii ci la ñuy liggéey keneen ak keneen ci lay liggéey donc bu ko couper mën naa am lu mu sooxe lu bëri. waaw foofu dama fay taxaw tuuti di fa nuyu sama ministre ministre de la communication et des télécommunications di l'économie numérique. Mhm. maître Moussa Bocar Thiam sama mhm. ministre sama leader. Mhm. di ko nuyu bu baax a baax a baax. Euh, coupé wuñu connexion wifi. données yi lañu ñu parce que ñëpp xam nañ Sénégal ni mu mel. ñëpp gis nañ ni réew mi bu fekkee nekk nañu ci réewum boo xamante ne bu euh, kii jotee bu manifestation yi amee. xale yi seen téléphone yi la ñuy jël. dugg ci koñ yi dugg ci dëkk yi. ñii naan jaar leen fii tàkk na ñii naan fii tàkkul ñii di jël téléphone di xool magasin jàmbur yi nga xamante ne tëjuñu ñuy wootante agresseurs yi bokk ci lépp bokk ci ñu xam ne loolu day gàllankoor moo tax ñu coupé données yi mais wifi yaa ngi daw entreprise yi seen wifi yaa ngi daw mais Sonatel bu ñu waxee loolu amaana ñoom seen poosu bopp seen intérêt bopp la ñuy waxee li ñuy jaay connexion ci journée looloo leen arrangé wu. mais day sooxe seen liggéey. non te ni ñu sooxee liggéey Sonatel noonu lay sooxee liggéey ñun parce que wifi du ñëpp am doole am ko. te yéen da ngeen di xool lekk li tax ngeen coupé li nga xam ne moo di internet bi. jàmmi réew leen lan moo tax sénégalais yi di génn ci mbedd mi. jàmmi réew donte yenn yi dañu koy ñaawlu parce que am na yoo xam ni peut-être waruñu ci mën a ay taal yooyu donc yooyu war nañ ko mën a éviter tey bu fekkee man dama bëgg a jukk daal di génn daal di ñaawlu daal di génn daal di manifester ci euh, manifestation pacifique nga xañ ma ko mais damay dem ci armée jàmmi réew mi moo ëpp lépp. préfet yëpp koo ci wax. du du du du jox autorisation euh, déglu ma parce que waa Sonatel bu ñu coowee loolu seen poste la ñuy coow lii bu ñu données yi jàmmi réew mi ak jàmmi Sénégal moo tax ñu coupé ko parce que doo jënd sa téléphone def ci sa connexion dugg ci dëkk bi di yàqal koo xam ne yoonam nekku si ñëpp Sénégal yëpp duñ politicien de xaaj bi yëpp ñun politiciens yi minorité lañu ñi ci bëri ñoom politique ñu ñu ngi xëy di liggéey yor seeni magasin gis nga li fi jàlloon mm-hmm. gars yi si moto la ñuy yéeg yor seeni connexion di live naan fii tàkk na fii tàkk na naan kaay leen jaar fii ñi nga xamante ne suñu parent yi ñu ngi ci àll ba loolu bu ñu ko gisee dañuy naan dëgg la kay fekk or que c'est manipulation bokk na ci ñuy taal dëkk bi yor seeni téléphone kon jàmmi réew mi moo ëpp foofu waa Sonatel li ñuy or li ñuy encaissé. jàmmi réew mi est-ce que waruloon njëkkee ci démocratie parce que ñu bëri ñu ngi wax que ni président Macky Sall dictateur la. waaw loolu amul kuñ ko waxul président Macky Sall xam nga lan lañ ko waxul wasin na te xam naa dinañ fa jëm dinañ ko ne léegi am na doom te kenn mënu ci dara président Macky Sall amul lu ñu ko yàqu loolu ñëpp lañ ko wax mais démocratie si président Macky Sall la la njëkkee te fa la jeexee parce que amoon na temps yoo xamante ne li li ñuy wax président Macky Sall ak lu ku nekk taxaw nga taxaw ci plateau nekk en direct di wax lu la neex ñu koy déglu ngay saaga di def lu ne te jël si wuñ la waxuñoo la bàyyi la ngay def ku ne di wax sa xalaat il faut que ñu arrêté il faut ñu arrêté Tigres Tigres désolé mais Sénégal amul loolu. am na boo xoolee déedéet boo ci xoolee sax nit yàgg na wàcc ci plateau ñu ne ñu mu ngi ci kaso ba ba nii nii rek plénière bii nii am na ñu bëri ci politiciens yi ci opposants yi fekke wuñu ko ñu ngi ci kaso ba. mais boo ba ci Walfadjiri mi nga xam ne dañu ko tëj. loolu yëpp gis nga Walfadjiri moom Walfadjiri moom waruñu ko woon tëj sax de bagage yi lañu war a teg dem yóbbu marché marché alizé ñu tas tasaree ko jaay ko. ah mooy li ma la waxoon démb rek gis nga télé mhm. sa télé nga yor journaliste nga da nga war a tëddee njaaxaanaay boo tëddee njaaxaanaay nga woo politicien nga woo opposant yow yow da ngay maandu. mais Walf da koy def. non no non non Walf du ko def. Walf du koy def Walf du ko def. bien sûr Walf def Walf mësu koo def Walf bu ñu invité opposant la ñuy gën a favoriser pouvoir. mais wal fu Mbaye Niang toog na ak ki nga xam ne moom moo di maître Ngagne Demba ci benn plateau. loolu mënul waaw Mame Mbaye Niang parce que da doon xalab Amadou Ba ñu nangul ko ko Mame Mbaye Niang daa àndul ak candidature Amadou Ba bi moo tax ñu nangul ko ko. mais bu àndoon na candidature Amadou Ba loolu c'était bien avant non Mame Mbaye Niang moom bëggu ko parce que ñoom ñi nekk ci nguur gi ñoom ñoo noon xam ne ne yàgg yàgg suñu candidat bi kooku lay doon parce que ñoom li ñu ko xam ñun xamuñu ko li ñu xam ñun xamuñu ko yaa ngi comprendre Mame Mbaye Niang bu mu fii jotee ak Sonko ñoom mosuñu ko invité invité wuñ ko Mame Mbaye bi muy jotee ak Sonko ñuy dem diffamation nii invité wuñu Mame Mbaye Niang après loolu lañu invité Mame Mbaye Niang te RTS xaw ma Walfadjri moom télé yëpp ñoo ko tane parce que télé yëpp dinañu tëddee njaaxaanaay. parce que télé yéen la ñu àndal boo xoolee ñi ngi bëri ñi ngi wax ci diggante impôt bi naan télé bu ci ànd ak Macky Sall sa impôt sax dañu koy xoolaat mais ku ci àndut ak Macky lu ci mel ni wal Walfadjri dañu lay tëj Sen TV def nañ ko ko Zik def nañ ko te Walf lu ñu koy toppee dañu gis que ni ñoom jëluñu sax kanamu benn policier jël jëluñu kanamu benn manifestant mais c'est quand même désolant. mais jël kanamu policier bu teel a jëlee opposant ñu waruñu ko jël. jël kanamu policier policier bu bañ ñu jël kanamam. manifestant warul bañ ñu jël kanamam boo génnee ne man damay dem samay droit wala damay dem da nga war a bu ñu jël loolu yëpp. loolu mais professionnalisme Walf bokk na ci ñu bañ a jël loolu. ça buñ ko tëjee yaa non ñoom bu doon loolu rek la ñuy wax bu doon loolu rek la ñuy def Walfadjri mooy njëkk tele boo xamante ne yow boo fi génnee léegi léegi sa tànk bi dugg ci biir mbalka ñoo njëkk génn ñu ne ñaari tànk yëpp de dagg na ci biir mbalka fekk du dëgg. mosuñu wane ay information mais président Macky Sall Walf gis ñi fal président Macky Sall. yow mi d'accord d'accord président dama lay wax lenn nag loo xamante ne lu ngeen xamul ci président Macky Sall man mi nga xam ne 2008. Mhm. laa ànd ak président Macky Sall. yow la ñuy président Macky Sall ba muy dugg ci àll yi. Mhm. di dem ci village yi. Mhm. di dem di campagnal boppam boobu walfa Walfadjri ñoom bi ñu toogee fii dañu mottali président Macky Sall village bu dëkk région bu ne def na fa weer. mais d'accord ah moo déglu ma rek déglu ma moo déglu ma da ngay xaar non non non da ngay xaar moom moo ah nu mu xaar Sénégal du Dakar rek Sénégal àll bi la mais Dakaroon ak man ki Sidi Lamine bokk na ci ñi nga xam ni ñoom ñoo fal président Macky parce que ba fi Abdoulaye Wade bëggee def troisième mandat Sidi Lamine moom moo xeexal ki nga xam ni moo di président Macky. Abdoulaye président d'accord loolu. ci troisième mandat. mais d'accord ba pare que ni président Macky Sall. a a may déglu doomam Lamine du lekk Lamine moromam te ñorul danga ma wax ba muy dem Mhm. dañu gis ne président Macky Sall macha allah. Mhm. dafa mat président xam luy loi xam ni dëkk bi taxee parce que Ablaye wadd ak président Macky Sall ñoo dendoon lépp li. président Macky Sall président Macky Sall moom ba ñu koy fal. li nga xam ne moom la Abdoulaye Wade bëggoon def ci la profito donc parce que mi président Macky boobu sénégalais yi dañoo doyal ci Abdoulaye Wade plan B lañ doon wër far mu tombé ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall. xam nga neexul ba neexul nag sama papa jooju. Mhm. Wade Fara Wade Ndiak Daara Wade Ndiak Maysa Wade Ndiak yokku mi ko sangum xeer ndax Wade laa sant daa am fit mhm. dafa jàngal Macky Sall politique. xam nga de déglu ma non non pas dictature il faut bi ngeen di wax moo leen réeral yéen nit ñi sénégalais yi est-ce que déglu ma gis nga dictature bi ngeen di wax bu leen ñaan yàlla mu dugg ci Sénégal yéen da ngeen sénégalais dafa neex billaay wallaay nga xëy déglu ma rek ngay xëy mm-hmm. wax lu la neex def lu la neex yow jamono yooyu dama lay wax rek jamono Ablaye Wade sañoo woon def lii site ku mu neex nga yor sa sit ku mu neex nga def li boo ko defee si saa si lañ la naan foog dugal. ba tey ñu ngi jël journaliste yi démb rek. journaliste bu nekk journaliste boo xamante jël nañu journaliste information donc ma ne amuñu yow déglu ma journaliste li ngeen di def bëggu leen ku ko journaliste boo waree nekk journal da ngay ñëw taxawal sa presse ne man journal presse bii laa nekk dégg nga ñu ne la lii nga taxaw jël sa liggéey pare dem mais journaliste boo xamante ne la nga war a jël doo ko jël fa nga war a dem doo fa dem li nga war a dugg doo ko dugg da ngay dugg leneen yaa problème na loo leen di nëbb parce que yéen bëggoo leen jàmm lu taal ngeen di bëgg te ñëpp leen di seetaan kilifa yéen di seetaan ñëpp leen di seetaan da ngeen war a xool li nga xamante ne tey suñu kilifa yi wala tey suñu yaay ñu ngi ca àll ba ngeen leen ah ñun de xaar mais da ngeen di jël lu daaw yéen yéen journaliste yi lu daaw ngeen di jël ye man yé damay damay généraliser boo nee bu ñee influenceur dañu naan influenceur yi da di jël li nga xam ne mooy daaw xoola démb li ñu manipuler ñu ne benn policier dee na dégg nga door nañ ko ay briques ba mu dee ñu génne ko or que c'est faux kenn deewul. non loolu c'est pas ah. loolu. non mais mais yéen la. parce que non bu jaawale bu jaawale. non non yéen daal yéen daal lu fi am yéen lañ koy wax yéen lañ koy jiiñ. bu ñu jaawale yéen lañ koy jiiñ. jamono bi ku nekk da nga yor sa téléphone. ma ne président Macky Sall daal ñun daal xam nga lan la ñuy wax sant yàlla alhamdulilah ba bu ñu tëddee dañuy nelaw ak suñu conscience tranquille président Macky Sall puusul élection président Macky Sall saytuwul président Macky Sall lépp lu ñuy laalee lu ñu puus élection rek nekku ci bañ na ko ba laala luñ takkaluñ ko ci lenn conseil constitutionnel waa wàllu double nationalité loolu la ñu jël puus ñu bind ko avant gis nga lii bind nañ ko président Macky Sall il un mois mu dëgg ci tànkam ba tey ñoom ñëpp ñu ànd dem léegi nag lu problème bi. mais yooyu wax nga y'a un mois am na loo xam ne depuis 2012 ki nga xam ne moo di président Macky dafa bokkoon ci ñi koy xeex. moom laa la doon wax sànq que ni Sidi Lamine sax da ko ko doon xeexle mooy li Ablaye Wade doon def daal di fii samp ab dictature am bëgg a taxawal troisième mandat ba conseil constitutionnel ñu leen di jiiñ lu bëri loolu nag jamono bii dañu ko gis ci président Macky Sall. yow de daa mel ni déggoo li ma la wax de yow mbirum troisième rek ngay wax. fii mbirum dégg nga ma yow loolu nga wax da nga ne Sidy Lamine Niass ma rek da nga ne Sidy Lamine Niass dégg ah, Sidy Lamine Niass li mu doon xeex troisième mandat déedéet waxuma loolu dictature désolé waxuma loolu pas dictature mais à la base ki nga xam ne moom moo di euh, président Abdoulaye Wade dafa ñëw ba war a def li nga xam ne moo di troisième mandat loolu benn point la mhm. donc samp fi ak dictature ça veut dire que war a bokk te warul bokk démocratie amatul woon Sénégal ki nga xam ne moom moo di Sidy Lamine Niass ak président Macky Sall li muy bokkoon ci ñu koy xeex pour démocratie dellu si donc moom bu ñëwee nit ñi naan wax démocratie ba tey amul Sénégal yaa a problème. dama déggoo ma ne li ma la wax de démocratie bu amul woon Sénégal tey kenn ku ne du ñëw samp ndëndam toog di wax lu la ne fu ne mbedd yi fu ne ngay dangay romb sax yow da ngay romb président Macky Sall démocrate mënul weesu président Macky Sall day romb nit xool ko ne ko diw saaga ko. loolu du de parce que Europe la peut-être mënu leen jàppee. fii ci biir Sénégal fii ci biir Sénégal président Macky Sall doxantu na côté géej ba dégg vidéo bi da doon gaañ bi moo mujj sax Marème Faye moo ko mujj woo xale bu góor bi ñëw di wax ak Marème Faye Sall ba mu ne ko man du ma APR bugguma APR dégg nga mais Marème fay yow danga ma neex te derrière dafa saaga dafa saaga après si la gars yi ñëw ñu jël ko mu waxtaan ak moom mu dem yoonam président Macky Sall su ko neexoon mu localisé mais président Macky Sall nee nañ la ku boot bukki xaj mbaw la. mais peut-être kon jàpp bi dafa am fu mu féete fu mu féete. Cheikh Bara Ndiaye gis nañ keneen ak keneen ñu ngi ci nekkoon nañ ci kaso bi même bu dee sax génn nañ mais Kaliphone Sall ak yeneen aadama ñu le mel. voilà merci dañuy saaga président mais après dañuy jékki-jékki gisaat ñu ànd ak président. waaw loolu nit ki moom moom président Macky Sall kilifa la président la ñoom bëgg yow mii man mii sama bopp su ma bëggul président Macky Sall sax sama président la. Mhm. bi fi nga wax Kaliphone rek laa lay indil nag loo xamante ne mooy preuve bu leer. Kaliphone bi mu saagee président Macky Sall saaga ko ay saaga xanaa xamoo président Macky Sall ba léegi mosul xam ne sax Kaliphone saaga na ko. Ah wallahi azim ba mu ñëw di toog ak président Macky Sall ba mu toogee photo ak moom ba pare ba dem keneen ko la ko kii mooy Kaliphone kii moo la doon saag di ko won ay ñoom Marème Faye Sall ñoom lijjantiwuñu loolu sax Kaliphone bi mu ñëwee fii def dégâts jot a xale bu jigéen bi du dugaluñ ko si kaso loolu beneen affaire la non dama lay wax rek dugal nañ ko si kaso bi mais kon bu fekkoon ne pré déglu ma bu fekkoon ne dafa ñëw def lu di def lu ko neex di wax lu ko neex jàppuñu ko or que ça Adamo nag dama bëgg bu ngeen di wax ne di wax Adamo yéen a ngi jaawale loo xamante ne bokkul waa APR barki Demba Ndiaye ba ñu demee France Adamo dañ ko yaatal waaw non non non non Adamo kenn yaatalu ko Adamo bu jógee Italie ñëw ne day seet si président Macky Sall doomi président Macky Sall la ndax président Macky Sall mooy président am loolu moom moom la concerné président Macky Sall li ngeen di wax yéen dictateur li ngeen koy tuddee lijjantiwul loolu internet bi ñaata nit ñoo koy saaga suba ngoon guddeeg bëccëg loolu moom la ñu saaga loolu concerné wul ay naan kii saaga na président dañ ko war a tëj président institution lañ saaga non non non président Macky Sall lañ saaga non non waa léegi nag ñoom personne déglu ma voilà déglu ma ma mais di def loo xamante ne day taal dëkk ku ko def dañ lay téye ñëpp ñu fi téye luy taal dëkk la luy laal mais moom supporté na nit saaga ko ndey supporté na nit saaga ko bàyyi loolu moom la concerné. mais kii saaga institution bi moom a gën man journaliste bi def sama liggéey ñu tëj sama thème. waa léegi moom bàyyi la bàyyi la président sénégalais la jëlul yëfu président yëfu sénégalais la jël balaa ngay lor keneen moom mu nangu ñu lor ko moo gën ñu lor keneen. mais tey jii nii ñu ngi lor ñeneen parce que tey boo xoolee groupe bu ci mel ni Walfadjri. yow bàyyi ma di ma wax bu groupe Walfadjri. ñaata groupe Walf groupe Walfadjri ñaata site ñaata site ñoo fi nekk. te mosuñu gis ngeen def ko ak TFM. parce que waaw xam nga lu tax. Youssou Ndour fa la nekkoon. Youssou Ndour Babacar Fall lan lay yàq président Macky Sall lu xeme. loolu moom la journaliste bi moom la concerné. waaw fi mu mais waaye Youssou Ndour yàqul kenn. Bougane Gueye Dany déglu ma amul lu mu mais bu jàkkaarloog teleem bi mosoo fi gis mu wax ci loo xamante ne dañu naan c'est désolant mu jaarale ko ci gémmiñ président Macky Sall parce que référence la parce que parce que référence la day teg ñii dañuy teg di débat euh, nu mu tëddi ñas boobu noonu doomu euh, ki nga xamante ne booy wal fajiri boobu joxewul benn référence joxewul naka yow en tant que yow nga ne yow yaa nekk chef de tele bi nga xam ne yaay directeur nga toog ñëpp di la seetaan ba ci xale yu ndaw naan damay dagg sama carte parce que je me raconte ma ne déedéet boobu noonu kenn wax ko daara loolu rafetul. loolu rafet déglu ma nañu waxante dëgg loolu rafetul carte d'identité nga ne dama jël ciseau taxaw ñëpp di la seetaan say doom nga ne damay dagg yow président Macky Sall moo la neexul na dem demal bu ko président Macky Sall mais Sénégal yaa ko moom sa nationalité moom ngay demee fu ne loolu est-ce que loolu référence dina def loolu. loolu on est d'accord on ko def. voilà Bougane Gueye gis mu taxaw lu muy lu yàq président Macky Sall mës na taxaw ci teleem bi. saaga président Macky Sall wax ko leneen xanaa li muy wax feneen lay génn rek buy campagne wax leneen nañ waxante dëgg ah nañu waxante dëgg tey jii site yi bëri nañu télé yi bëri nañu kenn ku ne si biir télé yi doone ñëpp a bëgg président Macky Sall amul ndax xol mooy bëgg am na télé yoo xamante ne mën na am sax maître El Hadj Diouf lañ bëgg mais dañuy doxal seen liggéey bàyyi seen journaliste ñu nekkee nu mu leen neexee mais wal fajiri ñëpp dañu opposant mais ñëpp dañoo obligé nekk ay opposant parce que loolu moo leen neex est-ce que c'est normal nit ki da nga koy boo ko joxee liggéey da nga koy bàyyi boppam mu def mais wal fajiri ku fa nekk boo xawee ne wax vive président Macky Sall rek xanaa président Macky Sall lu mu baaxul baaxul quatre vingt dix neuf pour cent yi un pour cent yi sax def na ci lu baax mosoo gis mosoo leen gis ñu génnee ko wal fajiri ngeen ne yéen télé boobu yéen da ngeen di yeeti président Macky dëgg la am na lu mu def lu baaxul mais pourquoi lu baax li duñ ko mës a wane seen télé. mais heure bu ñu koy tëj duñ leen tëjee ci que ni lu ñu wax président wala leneen donc dañ leen di tëjee peut parce que dañuy taal dëkk bi. lañ leen di tëjee waaw Walf mooy taal dëkk bi moo tax ñu leen di tëj tëjuñu Sen TV tëjuñu TFM tëjuñu ITV e tëjuñu ñu yëpp sa site bi sax duñ ko tëj mais Walf Fadjri day taal dëkk yow su xoolee journal wal Fadjri rek mës na gis journal wal Fadjri ñëw rek xool ñu toog chaque jour manifestation day dem sax fekk ay mboot yu manifester mu génnee ko mu ne Macky Sall la. ma ñu tëj Walf Fadjri Sénégal doxul non non non non. parce que li ñuy wane yooyu yëpp tamit fii la amee. non non non quoi qu'on puisse dire fii la amee. non non non non am na loo xamante ne daal ah, man dama bëgg télé dama bëgg télé daal télé daal booy wane daal. Mhm. wane lu baax wane lu baax. mais li ñuy wane Sénégal la amee. amul benn Sénégal. ah amul benn Sénégal ñetti nit ñaar nit yoo xam ne ay opposant la ñu toog fee nga ñëw jël leen wax leen def leen lu leen neex loolu loolu du kii dëkk boobu noonu booy jël dëkk boo ñëwee di jël benn di dem si dëkk da ngay jël sa micro tàllal ko ñëpp ñii ne la baax na ñii ne la baaxul ñu dajale ñu baax mais da ngay de ñetti nit ñeenti nit dajale il faut que man daal lem li ma leen di wax rek ñun bu ñu tëddee dañuy nelaw président Macky Sall yàlla dafa def ne dëgg la li ñu ko doon jiiñ yëpp yàlla moom da koo setal puusul waxul ñoom ñoo ñëw ñoo wax ak moom ñoo waxtaan ak ñoom ñoo ne dañoo bëgg pour seen élection ñoo nekk assemblée nationale di voter ñooñu est-ce que opposant lañ parce que jamono bii kenn xàmmeetul ku nekk opposant ku nekk waaw parce que ñëpp ñëpp ñu pose élection yi moo leen arrangé bëri na lool lool lool donc dañuy tàggatoo ak yow rek Tigresse amoon nañu mbégte daal di euh, jàkkaarloo ak yow euh, fii ci euh, plateau Click Dakar 221 waaw balaa may tàggatoo nag damay nuyu koo xamante ne macha allah mhm. dañuy naan mooy la lion di président Macky Sall mhm. nekk directrice nationale Jéegi Diop xam naa ne yéen da ngeen koy dégg jàmbaar boobu kooku nga xamante ne macha allah euh, sama idole la ci dëggoom loyautéem engagement am détermination yaru teey xam loi xam droit te mën a argumenté di ko teg ci temps jox ku ne gëddëm maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax directrice Diégui Diop di la nuyu di nuyu sa ministre Victorine Ndeye di nuyu influenceur yépp di nuyu nag waa groupe ñi nga xamante ne ñooy suñu groupe bi ñu bëgg Diégui Diop di nuyu son excellence président Macky Sall ki nga xamante ne lenn la ñuy jooy yéex yéex koo jot mais buñ ko jotoon ci ay ati at kenn waxatul lii di leen sant yéen tamit di leen jaajëfal ak disponibilité di nuyu ñëpp di ziar ñëpp wasalaam. jërëjëf kontaan nañ ci moom moom itam Tigresse bu Macky Sall di ko jaajëfal noon lañ leen jaajëfalee non seen. di daani sama waay la jàmm ña jaara wala man sa bi